salaamaaleykum mbokk internet yu euh, sans limite kontaan ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun alors ñi ngi euh, toog ak ki nga xamante ni <clears throat> ñu ngi koy woowee euh, Cheikh Gadiaga maanaam yor li nga xamante ni moom mooy cellule de communication CMG communication di média bu yëngu ci wàllu people wàllu lépp li nga xamante ni dafa soxal réew mi daf ci yëngu alors moom tamit également responsable politique la bokk ci APR tey ñu war a waxtaanee li nga xamante ni mooy actualité réew mi yoon nag lépp li nga xamante ni dafa soxal réew mi la ñu war a waxtaanee mais en attendant ñuy sori ci euh, présentation bi dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi. Cheikh maa ngi lay ziar. Euh, auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñi nga xamante ni ñooy ñi ñi suivre ci réew mi ak bitim réew di nuyu ñi nga xam ne ñooy suivre sans limite di site bu mag bi macha allah di nuyu kilifa yi fi nekk yépp di nuyu. ñi nga xamante ni aussi ñooy kilifa biir réew mi ak bitim réew jërëjëf. alors ñu war a waxtaanee actualité mais bon actualité bi xam nañ ni politique la xaw na ko gën a bëri sax wala sax mba wàllu yoon ndax sorti Ousmane Sonko bi euh, yàggul dara donc ban appréciation nga am déjà ci sorti Ousmane Sonko bi. waaw di ñaawlu kàdd yi nga xam ni Ousmane Sonko yëkkati na ko teg ko ci justice su réew mi parce que réew moom bu demee ba amatul justice wala buñ la tooñee. amatoo fenn foo koy jooyee réew moomu wax dëgg neex yàlla euh, démocratie bi day nax saay euh, ki nga xamante ni mooy Adji Sarr sénégalais la comme sénégalais yëpp am na droit ñu accuser ko mu dem porter plainte ki nga xamante ni moom la tuumaal euh, dafa war a dem wuy ci yoon yaakaar naa cette fois-ci maa ngi gis ñu wax ni ki nga xam ni mooy responsable salon bi woo nañ ko dañ ko war a déglu yóbbu ko si yóbbu ko si kaso bi Euh, ki nga xam mais mais mais attends lan moo tax nga jàpp ni dañ ko war a déglu yóbbu ko si kaso bi dèjà yow jugé nga ko ko su ma la déglu. non parce que li mu def dafa garaaw. Adji Sarr doomu jàmbur la jàngul massage xamul luy nga jël ko exploité ko ba li ko dal dal ko moom euh, warutoon a flotté bu fekkee ñi nga xamante ne dañ naan dañoo am yërmande ci moom euh, ndax li mu ëmboon ak li mu am doom kaso ba boo fa demee am na ñu nga xamante ni ñi ngi fa fa la ñuy téye seen doom ba ñaari at ñetti at. kon euh, loolu du euh, prétexte boo xam ne war nañ ko wax beneen affaire bi mooy Adji Sarr euh, day nit koo xam ni sénégalais la comme sénégalais yëpp man maa ngi jéem a joindre tantam ak sëram aju Sarr day koo xamante ni dañ ko war a jàppale Ousmane Sonko dafa war a arrêté dem wuy ji justice ñu poursuivre ko su nanguwul wuy ji wala yooyu mu doon def ak yooyu ñu dem jël ko dugal ko ci kaso bi dem déglu ko comme sénégalais yëpp parce que dëkk bi dëkk yoon la voilà d'accord alors bala ñu insister wala sax bala ñoo eggale ci ki nga xamante ni moom mooy euh, Ndeye Khady Ndiaye donc parce que loolu moo gën a récent mais avant boobu Ousmane Sonko bi ngay ŋaañi léegi nii Ousmane Sonko li mu wax dani union des magistrats UMS ñoom ki nga xamante ni mooy Adji Sarr bi mu doon faral di génn ñoom waxuñu dara il a fallu que moom mu génn taay Adji def na ay sorties presque de 3 à 4 sorties euh, magistrats yi waxuñu dara Ousmane Sonko génn wax affaire si procès bi léegi ñu bëgg ni Ousmane Sonko dafa war a respecter justice bi moom si angle boobu la waxee ko en fekk non usman Sonko dafa wax ni justice woo nañ ma deux mois ngi ni maa ngi war a signé ji pour sama contrôle judiciaire waaye defuma ko ndax magistrat yi du ay magistrat yu ma am confiance ci ñoom moom dafa insulter magistrat yi. ku mel ni Barthélémy Diaz gis nañu procès Ousmane Sonko bi mu waxee loolu magistrat yi dañ ko jël tëj ko six tey dëkk dafay am yoon président Macky Sall dañ ko fi teg ci constitution bi la ne pour sénégalais yépp mu sàmm seen sécurité. sénégalais yëpp mu sàmm seen wér-gu-yaram loolu mën nañ ko ko topp ëllëg léegi nag moom mooy responsable bi moom mooy chef suprême des armées garde de la constitution chef suprême de la magistrature kon dossier bi nga xamante ni sénégalais yëpp bëgg nañu am lu leer ci dossier bi gis nañu ni mi ngi ci tànk yooyu ndax borom salon bi woo nañ ko mardi bii di ñëw incha allah euh, sénégalais yëpp ñi ngi séentu ñu jeexal problème bi parce que politique du métier nit ñi am nañu ñu am na ñoo xamante ni politikuñ nekkuñ ci ay cadre politique mais aji Sarr day koo xam ni sénégalais la comme sénégalais yépp Ousmane Sonko day koo xam dafa war a dem wuy ji yoon euh, ñu àtte ko ñu leeral li nga xamante ni moo nekk seen diggante ñoom ñaar. d'accord Euh, mais ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Solo ba léegi dañ ci dañ ciy taxaw gis nañ ni Mimi Touré bokk yaakaar bi ñuy seen seen conférence de presse bi Mimi Touré mi ngi wax mi ngi rappelé Ousmane Sonko ne ko na wax ci ayu Casamance bi ba Dame di ko tontu ni Ousmane Sonko moom mooy nekk seul politicien bi nga xamante ni dañ koy fàttali ay racinam ay que question boobu jar na wax naan Ousmane Sonko demal euh, nga wax ci sa xalaat ci euh, par rapport ak Casamance bi. ah mais Ousmane Sonko nangu si wax parce que li xew Casamance am ay militaires yoo xam ne ay doomu Sénégal lañ ñu rey leen foofu waroon na mën a def point de presse pour wax ci mais euh, kenn du toog ci der di jëw yàpp moom problème bi yëpp mooy jàpp na ni euh, Casamance ñoo ko mën a jox Sénégal te Ousmane Sonko ci réew mi ñu nekk incha allahu rabbi du fi nekk président de la république. ndax nitu fitna la Robert la nit la boo xamante ni day yee fitna te képp koo xamante ni da ngay yee fitna euh, yenent bi tëkku na ko. Euh, bon kon du nit boo xamante ni franchement war na mën a nekk dara Sénégal euh, ndax amul responsable boobu impôt et domaine bi ñu ko joxoon mu nekk foofu doon liggéey bari na yoo xamante ni ñàkk responsabilité moo tax mu génn di ŋàññi di kaas ba ñu jël décret dàq ko kon moom xamul ni état di doxee parce que inspecteur impôt et domaine xamoo ni état di toxe li ngay def mooy vérification compte vérification yi nga war a def ak yooyu te loolu du dara kon Ousmane Sonko amul lenn loo xamante ni Sénégal bàyyi nañ ko ci xel Mimi li mu wax d'accord naa ak moom. mais ñi dañu gis ni euh, Mimi Touré warul nekk di daagasante ak Ousmane Sonko. non du question daagasante parce que euh, Ousmane Sonko bu waxee dañ koy tontu melul ni moom moom réew mi réew mi démocratie la euh, Mimi Touré ku ne xam na ni ku foor ci Sénégal la. ministre de la justice la boo xamante ni parcours bu rafet la fi amee gis nañu it ay wax yu bari yoo xamante ni jub na day génn leeral parce que Macky 2000 2012 moom ci la bokk. alors ñu ñëw si euh, parrainage bi parrainage bi <clears throat> taxawu taxawu Sénégal ak euh, yeewu as yeewi askan bi euh, daanaka coalition yi nekk si opposition bi gëm sa bopp également ñun ñëpp rejeté nañ li nga xamante ni moom mooy moom mooy parrainage bi donc yow ban appréciation nga am ci loolu. non appréciation mooy parrainage moom dama si d' accord parce que lu tax boo demee France am nañ façon parrainage boo xam ne moo gën a metti si ñun suñu bos dama ci d' accord di gën a jaajëfal président de la république. ci parrainage bi parce que bul toon parrainage tey di nga gis gis nga fi élection yi nga xamante ni ñoom la ñu fi defoon ay ñi yoo xam ni 1 pour cent sax amuñu ko am ñoo xamante ni seen seen yaay seen mindaan seen doom moo leen wooteel comprendre nga kon ñooñu jaruñoo ñu ñuy dem élection parrainage bi dama ci dama koy rafetlu. est-ce que nekkul lu ñu bëgg a éliminer li ci parallèle yi parce que parrainage bi ñenn ñi ngi wax jàpp ni Macky Sall moom moo ci am moom moo ci am avantage parce que du am liste parallèle. non ñi wax loolu dañu xamul politique. mais parrainage bu fekkee yow wóolu nga sa bopp am nga mbooloo am nga ñoo xamante ni ñoo nekk euh, sa wet di la jàppale war nañu mën a euh, toog soutenir la signer la jàppale la gunge la nga dem si élection yi su fekkee amoo ko nag jarul ngay ngay ngay laaj baatu askan bi loolu yoonu président Macky Sall nekku si. d' accord ñu ñëwaat ci euh, Ndeye Khady bi nga xam ne dañu ko convoqué marché mardi plutôt doyen des juges moom moo ko convoqué audition yi dafay démarrer. presque mën nañ koo xalaat ni mardi à partir de mardi bu ñu paree si moom mën nañ jot dinañ convoqué Ousmane Sonko Adji Sarr et cetera est-ce que euh, ñenn ñi lu ñu tiit ni wala sax lu ñuy njort mooy Ousmane Sonko dafa wax Adji Sarr dafa wax Ousmane Sonko wax ñu ubbiwaat dossier bi gisoo ni euh, dafay dëggal ñu naan justice bi daal daanaka dañ koy dañ koy manipuler wala il a nga wax rek pour ñoom ñu réagir. non man gisuma loolu parce que bi mu déposé contrôle judiciaire euh, juge bi xamal na ay avocat moom Ousmane Sonko daf ko war a déglu ndax mi ngi doog ñëw Euh, juge bi aussi comme dafay doog a ñëw jël fonction dossier boobu bokk na ci demande bi nga xamante ni àdduna bépp ñoo ko demandé gis nga journal international yi fi ñëw euh, jël ay propos Adji Sarr kon du ñu def lu dul rafetlu euh, justice bi ni muy doxee parce que mi ngi doog agsi il fallait que mu déglu leen ci fond bi bu leen dégloo yoon may na ko mu placer leen su mandat dépôt yoon may na ko aussi mu jël dossier bi enroulé ko yóbbu ko jugement kon euh, décision yi mu jël dañ ciy dañ ciy rafetlu bu baax a baax te justice ñëpp la fi nekkal képp koo xamante ni da nga def loo warta def danañ la jël yóbbu la ci yoon yoon atte la loolu moom nday xadeeg moom ak keneen moo ci yem mais man li may mettitlu rek mooy wax yu ñaaw yi nga xam ni am na ñu ñuy tuddee ay kilifa am ñoo xamante ni duñu dara ndax seen jabar yi ñu takk tey dañ leen a violé te xam nañ ko di ko nëbbu. bari na ci dëkk bi ñoo xamante ni ñu ngi ñëw di jël Adji di jël ay kàddu yo man Adji damay demandé euh, man Adji damay demandé sax jël ko soxna ànd moom dem si restaurant ba kenn ni ko sa bët bi suufa ngi ci Adji Sarr yi ànd moom bërën sa ànd moom fépp parce que dafa war a génn parce que ñi ko violé nekk ay criminel ñi ngi nekk si dëkk bi di dem fu leen neex Adji mënul dem fu ko neex pourquoi pourquoi loolu loolu dafa war a jeex si dëkk bi dañu war équilibré dëkk dafa war am stabilité boo xamante ni ñëpp ñoo ci war a bokk yem. Adji Sarr dañ ko veela tooñ ko justice na def liggéeyam ñi nga xamante ni ay képp koo xamante ni wax na ni Adji Sarr veela wuñ ko wala nangam nangam naa fekk parce que yow gisoo PV yi gisoo li nga xamante ni mooy constat yi gisoo li nga xamante ni mooy euh, euh, euh, médecin bi nga xamante ni moo ko suivre lan la wax ñu ci bari ñu ngi wax ñoo xam ne amuñu ko. mais yow dama Eh, li nga xamante ni loo xamante ni yoonu dogalagu ko. man affirmé wu ma dafa am ñu may tontu fenkat yi nga xamante ni ñoo nekk di jël Adji Sarr di ko tam dëmm ñooñu ci boppam laa bëgg nu arrêté te noppi. Adji Sarr jigéen la am na droit ñu violé ko mu dem porte plante fii la mais France boo jotee ak sa jabar 100 mètres carrés ci kër gi dañ naan la bu fa jaarati France France gis nañu Dominique Toscane bi mu demee États-Unis ki nga xam ni moom la joteel mais dañ koo téye ba affaire bi leer te amoon na pouvoir pour nekk président France pourquoi ça pourquoi pas usman Sonko ñu jël ko jébbal ko justice ñu àtte ko teg ko ci fi ñu ko war a teg bu fekkee dafa set ñu seetal ko bu fekkente ne seetul yi ñu teg ko fi ñuy teg ñëpp loolu mooy yoon dëkk warul am euh, euh, euh, ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ba pare 14 personnes yi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan nan ko leeral ndax moom moo woote ni sénégalais yi génn leen ngeen xeex kon ku ci dee responsabilité am la Ousmane Sonko li nga xam ni moom lañ koy topp yëpp yoon da ko war a leeral pour sénégalais yi xam ni yoon ñëpp la fi nekkal te ku wàcc yoon ñu tegaat la ci yoon voilà. alors ku wàcc yoon ñu tegaal ci yoon ah donc ñi ngi toog ki nga xamante ni mooy Cheikh Gadiaga responsable politique nekk fi nga xamante ni mooy APR alors sorti Ousmane Sow audis bi loo ci wax Omar Sow audis maa ngi gis benn sortie bu mu def ci journal euh, ci site boobu direct actu euh, am benn article bu sans bind pour di ci wax euh, affaire escroquerie ak association. kon yow droit de réponse bi am nga ko. non moom gis naa aussi mu wax ay wax yoo xamante ni article bu sans bind contre moom mais loolu su amee dafa war a dëggal wala mu weddi article boobu sans wax si moom mais muy taxaw di wax Cheikh Gadiaga moo nekk ci ginnaaw article boobu te loolu mu wax dara amu ci beneen bi mooy démb sax lañu waroon def émission bi euh, démb ci alxamis bi mais maa ngi woon. Euh, ak samay avocat ku mel ni maître Ciré Clédor Ly ak ñeneen pour ñu si si euh, euh, servir ko citation direct ak site boobu di direct actu man maa ko bëggee noonu comme moom ci ay bind la wax man dinaa ko servir citation direct ñu dem tribunal ma leeral askanu Sénégal ak askanu àdduna kan mooy Omar Sow bépp conversation bu ñu mës a def muy ay essage WhatsApp UC constaté na ko xool na lan lañ mës a wax maak moom ba xam Euh, euh, am na ci loo xamante ni méngoo ak lim bind ci article bi euh, dafa war a dëggal li li sans wax wala mu weddi ko wala mu topp leen mais warul jël accusation yu tol noonu di wax Cheikh Gadiaga moo nekk ci ginnaaw loolu bëtu tan xeeb na ndawalu sànq lañ us Omar saw na arrêté te xam ni man du ma moroomam man xeex jaral na ma yëkkati cinquante million ànd ak maître Ciré Clédor ak yeneen avocat dem cour de la justice CEDEAO pour setal sama bopp moom xeex jaralagu ko loolu na arrêté man xajuma ci kaw. voilà jëw xajoo ko ci kaw euh, kontaan nañ ah, kontaan nañ ci ci waxtaan bi lan nga bëggoon euh, wax loo xamante ni amaana laajuma la ko pour ñu euh, tëjee ko émission bi. li ma bëggoon a wax rek mooy di gërëm bu baax ki nga xam ni mooy président de la république. di ko jëfal ci ndam yi nga xam ne am na ko jig bi mu jig réew mi di wax man Cheikh gaje ga man la engagé président de la république na toog ba deux mille trente cinq élection présidentielle yi di ñëw na ko puus parce que dafa am Covid dafa yàq lu bari ci mandat ak li mu waroon a liggéey na ko puus na ko arrière loolu sama responsabilité la article onze déclaration universelle des droits humains may na ku nekk nga wax lu la neex jaarale ko fu la neex loolu man la engagé kon président Macky Sall na toog ba 2035. beneen bi mooy sunu yaay Adja Marème Faye ñi ngi koy jaajëfal bu baax di ko ndokkeel di ko wax joyeux anniversaire ci anniversaire am bi nga xam ni démb la woon. di ko ñaanal fan wu gudd te ànd ak wér di wax mooy premier dame bi jig réew mi jigadiwu ko beneen bi mooy di gërëm euh, suba communauté Mouride ci màggalu Daaru Moxti bi di jaajëfal nag sunu xarit sunu frère ki nga xamante ni moo jël 200 millions tàmbalee ko ci jumaa ji muy Mouhamed Nazir Samb bëgg ko sax waaye nag Sëñ Blaat nee na euh, lu baax jant la lu baax ak fóot ak jàngoro ñooyam dañ koy weer kon ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal fi baayam buggoon mu teg tànkam teg na fa tànkam yàlla na ko yàlla yokk aar ko sàmm ko di wax nag euh, li nga xam ni mooy dëkk bi kenn mënu koo taal kenn jëndul kenn man xaw ma Adji Sarr musuma ko gis. injustice dafa bon ci réew. non Adji Sarr dama koy takk ànd ak moom si restaurant yi ba xam kenn dina ni ko nangam Adji Sarr man rek maa mën a nekk jëkkëram nit ñi respecté ko man Cheikh Mbacke Gadiaga maa mën a nekk borom këram nit ñi respecté ko te nit ñi foog ñu respecté ko. ki nga xam ni moo violé mi ngi dem fu ko neex Adji saa dafa war a dem fu ko neex fréquenté ku ko neex kan moom moom Sénégal ba kenn ni ko sa bët bi suufa nga ji maa ngi profité waale aussi di wax ni ñi ngi naan garde corps yi ko jox Taïb soose Taïb soose fii bi mu attaqué murid yi mais waa bi ñoo ko jël biñ ko indi ci sëñ Bass Abdou Khadre fa la ma fekk xanaa kon Taïb soose état moo nekkoon si ginnaam article 1 ak 2 constitution bi dafa wax képp koo xamante ni sénégalais nga président de la république war na la aar sa kaaraange beneen bi war na la aar si sa wàllu santé waaw mais boo nekkee en danger mais danger boobu nag laa bëgg waa bi écarté jox ma Adji Sarr ba xam kenn dina ko attaqué. nga téye danger bi ba danger du am. amul yoo tamit man ak goon. yow ala. ak goon. loxo jàmbur la de Coura ko mais sama sœur la Coura Macky maa ngi koy félicité di jaajëfal propos yi nga xam ne mi ngi koy yëkkati di défendre Adji Sarr François Hélène maa ngi koy félicité Gabriel Kane maa ngi koy félicité di félicité yi femme yi nga xamante ni ñooy jàppale Adji Sarr di félicité it ñi nga xamante ni ñooy journaliste yi nga xam doon nañu wax ci problème bi te xamuñu ko woon te actuellement gis nañ ni xam nañ ko ñu ngi leen di félicité bu baax di leen ñaanal di jaajëfal rédaction sans limite su ma limee damay juum di leen jaajëfal bu baax a baax ci euh, invitation bi di leen jaajëfal ci seen liggéey di leen jaajëfal ci li nga xamante ni ñu ngi koy euh, informer juste euh, vrai maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. alors ça a été un plaisir de vous servir Ousseyn ngeen doon àndal ñu doon waxtaan ak euh, monsieur Cheikh Gadiaga responsable politique donc euh, di la jox rendez-vous beneen rencontre ci beneen euh, émission jaajëf.